رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله دي لن خملني كي نيو فك كي نيو فك سي جيكو تاخ ني نيو سي موم جيكو مو تاخ ني نيو سي موم اند اند نيت بو اندك موم رين با ديوين نيت دو اندك موم رين با ديوين te ken deggulen te ken deggulen seen i jikko rafet. seen i jikko rafet. ñoom nag seen i jikko. ñoom nag seen i jikko. damay wax ni baxrun laa saahila lahu. damay wax baxrun laa saaliha lahu. seen i jikko. seen i jikko. rafetaayam. rafetaayam. ak taaruwaayam. ak taaruwaayam. baxrun laa saahila lahu. ne baxrun laa saaliha lahu la. mooy géej. mooy géej. gu amul tefes. gu amul tefes. yàlla tagg yonent bi. yàlla tagg yonent bi. Seydina Mohamed mi nga xam ne Seydina Mohamed mi nga xam ne moo tax ñu daje fi. ni ko wa innaka la ala xuluqin azimin. ni ko wa innaka la ala xuluqin azimin. yaw day yow day yaa gën a rafet ñëpp jikko yaa gën a rafet ñëpp jikko yaa gën a kawe ñëpp jikko yaa gën a kawe ñëpp jikko yaa gën a tedd kóllëre kóllëre yàlla da koo bëgg yàlla da koo bëgg da koo fonk da koo fonk kon ku ko matal kon ku ko matal nit ku baax nit ku baax nga loolu muy def nag loolu muy def nag ci jamono bii ci jamono bii wax dëgg yàlla dafee raar wax dëgg yàlla dafee raar mën naa ni sax amatu mën naa ni sax amatu fi ndax am na ñoo xam ne ndax am na ñoo xam ni ña nga ca biir Touba ña nga ca biir Touba di seq ak seeni kóllëre lu ne seeni kóllëre lu ne. waaye buñ fi jógee. waaye buñ fi jógee. fàtte nañu fàtte nañu leen. waaye kuy jàpp nit. waaye kuy jàpp nit. ba yow mu jàpp la moom alfahima yoro kuy sàkk kóllëre ci nit kuy sàkk kóllëre ci nit. ba yow mu sàkk ko ci yow ba yow sàkk ko ci yow. kuy téye nit ku baax kuy téye ku baax. ba mu jàpp la ba mu jàpp la. ndax ndax ñaan. ndax ñaan. ku faatu ku faatu. nga ñaanal ko yàlla nga ñaanal ko yàlla. tiyaaba jooju tiyaaba jooju. kenn xamul lu ca nekk xamul lu ca nekk. ne te ñun xam nañ ni dañu fi jóge moo tax ñuy sàmm suñu kóllëre ak yow ndax loolu waxtu wu ne danañ soxla lii sëriñ Bachir daal sëriñ Bachir daal suñu mbégte mënuñu ko suñu mbégte mënuñu ko xamuñu sax fan xamuñu yàlla xam ne dañuy dañuy jabatu di wax rek <laughs> ne dañuy jabatu ndax dañoo bég di la sant yow nag ne mi ngi ñuy sant bu baax li nga ñu leeral tey ci mbokk gi ne li ma leeral ci mbokk gi mosuma ko xamee noonu ne mosuma ko xamee noonu maa ngi ñaan waa Dakar Actu maa ngi naan waa Dakar Actu lii moom bëgg naa ci lii moom bëgg naa ci copie bind ko bind ko itam nga jéem koo bind man tam ma jéem ko bind yaxanal ko yaxanal ko ah, euh, njëriñ lay doon ne njëriñ rek la ne njëriñ rek la foofu sànni xel mënu cee ñàkk ne mënu cee ñàkk mënu cee ñàkk ne Serigne ba Serigne Serigne Alpha daal nee na kontaan na Mbàkke xolam sedd na guy ci yow lii teraanga gii nga jël teg ko suñu loxo ne teraanga gii nga jël teg ko suñu loxo bu soobee yàlla bu soobee yàlla xaw ma lu ñuy séddale di ko joxe xaw ma lu ñuy séddale di ko joxe muy génn muy génn waaye du ca bokk waaye du ca bokk lu ñuy jënd la lu ñuy jënd la ci ay daara ci ay daara def ko ci kër gi def ko ci kër gi jaamu yàlla yi lekk jaamu yàlla yi lekk ko mu nekk mu dugg seen biir mu dugg seen biir am ca lu ca des am ca lu ca des waay jaamooti yàlla lu waay jaamooti yàlla am ci sa wàll nga am ci sa wàll incha allahu taala damay waxtaan ak sa maam Abdou maam Abdou mu ma sa maam Maodo daan ni sa maam Maodo daan wax ni fekk sa maam góor euh, maam Abdou bés mu ne ma mais da fekk góor gi bis mu ni ko man de gàmm. man de gàmm. li ko mag ñu sos. li ko mag ñu sos. bàyyi ko fi bàyyi ko fi. moo tax moo tax. waaye su dul woon loolu. waaye su dul woon loolu. dama naan kenn ku ne. dama naan kenn ku ne. toogal sa kër. toogal sa kër. sa dëkk sa dëkk. gàmmoo fa gàmmoo fa. ndax yëg naa ni. ndax yëg naa ni. bari na yu yuñ ci rax. bari na yuñ ciy rax. yu ci bokkul yu ci bokkul. ba mu yàgg mu ne. ba mu yàgg mu nii ah waaye. waaye sa maam de daan na wax. sa maam de daan wax ni. <coughs> bokk na ci li tax mu sawar ci. bokk na ci li tax mu sawar ci. jullit yi daje. jullit yi daje. xamante xamante. ay kóllëre ay kóllëre. fasoo fa fasoo fa. bi ci des. bi ci des. nga am sa kilo ceeb. nga am sa kilo ceeb. togg ko togg ko. nit. nit dox ba yem ca. ne nit dox ba yem ca. tibb ceeb tibb. ne tibb ceeb tibb. lekk lekk. mu dugg ca deret ne mu dugg ca deret ja am lu am lu génn la des ca deret ja ne la des ca deret ja feeg nit koy dund feeg nit koy dund wax wax alif lam mim ju wax alif lam mim ju wax allahu akbar ju wax allahu akbar ju mu wax nga am ci sa wàll nga am ci sa wàll joxe moo joxe joxe ñam am solo moo tax sooy seet moo tax sooy seet berndeel borom Touba wax berndeel gii maam borom Touba wax soo soo bisu di bisu màggal doo ko xam ko xam nit ki nga jox mu naan guuxu ndox. nit ki nga jox mu naan guuxu ndox. wala benn benn mbiskit. wala benn mbiskit. te yàlla tax te yàlla tax. lu mu jaamooti yàlla. lu mu jaamooti yàlla. nga am ci sa wàll. luqmatun tasud waaw loolu la. afdalu min binaa'i alfi masjid. loolu loolu loolu la sëriñ bi wax. Euh, ndegam sallallahu alayhi jàngal nañu ni. nee ndegam sallallahu alayhi jàngal nañu nit ku sàggan. nit ku sàggan. lool. nee lool. ci digganteem ak boromam. ci digganteem ak boromam. jëf na jëf. jëf na jëf. ju xeebu ju xeebu. yàlla dëgg ca yàlla dëgg ca. dugal ko aljana dugal ko aljana. jëf ja mooy lan jëf ja mooy lan. fekk xaj bu mar fekk xaj bu mar. jotul ndox mi ci teen bi jotul ndox mi ci teen bi. nit ko góorgóorlu nit ko góorgóorlu. ba xaj ba naan ba xaj ba naan. yàlla tabal ko yàlla tabal ko ca aljana ku jox jullit mu naan waaye ku jox jullit mu naan rek. jox ko mu lekk jox ko mu lekk. ah nooy def nooy def. te te itam jëf yi. te itam jëf yi. Euh, puissance am. puissance am. day yokk day yokk. ca waxtu wañ koy jëfee. ca waxtu wañ koy jëfee. ak bés ba ak bés ba. kon bés yooyu. comme bés yu tedd yooyu. lu ci waay def ci njëkk rek ci waay def ci njëkk rek. ay na la yàlla di fay kenn mënu koo xayma. nee na la yàlla di fay kenn mënu koo xayma. Kaaba gaa nga ne. Kaaba gaa nga ne. benn rakk ngay julli. benn rakk ngay julli. mu tolloog téeméeri junni rakk. mu tollook téeméeri junni rakk. dégg la de tax bërëb ba la lu tax bërëb ba la. waaw dëgg la de. noonu itam la yàlla amee yeneen i bërëb noonu la yàlla amee yeneen bërëb. yoo xam ni. yoo xam ni. rus na rus na. ña fa nekk ña fa nekk. tëdd fa tëdd fa ngir ngir sopp guñ ko sopp sopp ko sopp ak roy gu ñu roy ak roy gu ñuy roy sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu ngi ñaan seen barke sëriñ bi lépp luy sa yitte yaag ñi nga àndal ak ña nga bàyyi gannaaw ñi ñëw ak ñi ñëwul yàlla na ko yàlla faj yàlla na ko yàlla faj salaamu alayka ya rasulallah السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله